yaa Allah yaa Allah loo ci ñaan may la loo ci jéggalu mu baal ci la ngëne li tàbbee ci la xewal yokko shahr Ramadan غدا يا حبيب يا حبيب رمضان ba. maa ngi ci xam nga rek bi ma ñëwee ci kër gi léegi yàggul. Mm-hmm. daanaka presque matagul at. Mm-hmm. te koor mi ma fii doog a fekk. am na yu bari yoo xamante ni yaa ngi ko gën a xam daal ci wàll sëñ bi mm-hmm. ndogg bi dañ koy defaree jus yeeg yooyu am na ñoo xam ne naturel lañ bëgg ñii mm-hmm. nag dañuy bëgg di ci def yenn yi te na xam nga sëñ bi moom dafa naqari tere mm-hmm. yaa ma gën a xam jikko dama bëggoon expliquer ma rek taaju ndogg beeg yooyu <laughs> merci beaucoup si ñëw gi nga ñëw laaj ma noo war a taaja ndogg ak noo war def parce que nga ko bañ a laaj te soo ma ko laajutin mooy loolu moom ma war mënuma ci dara parce que jeeg nga may jeeg mm-hmm. mais comme ñëw nga jox ma cër te toog ak man laaj ma mm-hmm. ma wax la li ma ci xam parce que kër gi moom bëri na ay façon ku nekk ngi mais moom xam nga ne yow neexul deret mm-hmm. diir bi nga nekk ak moom yàggul mais xam nga ne neexul deret kër gi moom wax dëgg yàlla la ni ndogu moom te ba pare jus yu ëpp yi non non rek naturel parce yéen ñaan ngeen am benn problème comme comme da nga laaj ma ma la jikkoom te xam nga ne gis nga ni mu nekk ci kër gi moom neexul deret may ñu dara <laughs> sëñ bi de mu ngi noonu. mais xam naa daal lu mu gën a naturel rek gën a baax. Ah. waaw incha allah bu si am dara looy tiit man dinaa nekk sa ginnaaw mais lépp nag après ci sa loxo laa koy teg rek. sa ginnaaw yow tamit bàyyi rek ma nekk ci sa ginnaaw di la jàppale di la woon affaire yi comme maa la fi. Ah, mais lépp teg naa ko ci sa loxo amul benn problème da ngaa baax rek franchement. ma tey bu la neexoon tamit su ma hmm. ñëwee danga ma xatal baa nga bund xatal ma baa nga dàkk ma mais loolu lépp defuloo ko boobu ba tey dafa rafet dara ñaaw may ñaan yàlla tamit dara bañ a ñaaw te dara lu ñaaw tamit duma ma sa am sama diggante man ak yow. su ma si ñaawee day fekk mais. non du ma sa am du ma sa am seen diggante yéen daal ba ko yàlla di tudd wax dëgg yàlla booboo. Mm-hmm. mënuma ci dara. waaw ah, loolu yàlla lu mu lu mu def jàmm bi mënu ci dara. kon mm-hmm. boog da ngay daal di nangu ndogal rek. Ah, di wax ne que tamit franchement dama kontaan ci yow trop nag. Ah, kontaan naa ci yow boot nga ma rogganti nga ma. yaa ngi may naxtaan bëggoo dara lu ma nakkari xataloo ma ci kër gi. kon boog damay topp sa ginnaaw rek di la wax ne que nag. Mm-hmm. kaddu bu rëy laa lay jox de. kaddu waaw sukkaru koor bu ni muut. te na bu ci teg benn baat nga wax ma rek lépp loo bëgg ma jëndal yow de da ah lu ko yëngal. yow xamoo ne sama nijaay benn moom mbaay soxlawu ko ci kër gi teggal loolu ci suuf bu mu ko dégg sax nag. sukkar ko dara ñu ko ci yooyu yëpp bëggu ko gisoo ma koy def defal ni ma def ma toog jàpp sama ñàmbur bu fi indi dara bu fi indi benn bur bi xam nga jikkoom te dafa naqari deret waaw naka dara moom yàlla def na ko moom tegal ci suuf ah, ma teg lépp ci suuf tegal ci suuf ah, kon amul problème bu ma benn mm-hmm. coow benn problème comme que yaay ci kër gi mm-hmm. ba neex yow la woon muy naqari nga toog mm-hmm. sàkket lépp ba yàlla def li muy def ma ñëw fekk si kon boog ma diggal nekk rek loolu laay def incha allah amul benn problème incha allah dinaa ci gën a waxtaan ak moom loolu moom tënket <laughs> ñëwaat déet waxuma la lool fii sax gis fi weer du yomb moom dafa man ne service de sen laa ciy dugg weeru koor ba mu demee léegi matul fukki weer ak ñaar par six mois lay ñëw léegi daa gàtt kii gu ma eh, waaye lii la mu doon moom lii la ma def moom xamu ni kon daa mel ne amu leen ni bakkan ak i bët weer wi mi ngi nii weer waa na ngi nii weer waa ngi nii dëng tuuti nii tuuti gisoo ko xoolal suuf ci kaw asamaan si service d'hygiène lañ doon déglu rek anam weer waa ngi nii eh, xoolal eh, ah, ah. wax na dëgg de. wax dëgg weer waa ngi ah, waaye bañ bañ ko weeru koor nag. moom kay nag tey wax na dëgg weer waa ngi nii moom. yan caama ko daan xool waaye tey kii moo ko gis yan caam yàlla ko yàlla yërëm. amiin weer wi ñëw na auzu billaahi mina seytaan weeru jàmm sa borom dimbali. taafeero weeru jàmm. taxaw leen taxaw leen taxaw leen. weneen a ngi weneen weneen weer. lan weneen weer a ngi bu mag. weneen lan weneen lan. moo yéen dafa am mel ne amu leen bët mais ma ñëw man. waaw kii weer na ko woon na doon weeru boppam na ko woor moom. waaw we waaw weer woowu nag mën nga ah, na ko woor wi nga gisaat fii woor ko ñun wii la ñu woor. yàlla na yàlla suturaat ci weer wi. taa feer weer jam